AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV arrahimun qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al-huda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawali wali laqil lisani wahlulan minhu al-uqad waj'alhu dhakiran wa shakiran abada waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida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 tey ñu fas leen yéene xekk ma bu amati solo te mooy wéyale li ñu ak yéen fan yi dem jëm ci taxawaayu ab jullit ci feet yi ñuy wax nowel mooy muy 24 ak 31 décembre tey ñu indi leen ci nag xikma Cheikhul Xadim sunu yaakaar nga xam ne ni méngoo naag euh, li ñuy wax lool te mooy wattandi ko jaxase lu baax ak lobon ndax mënunoo ànd sëriñ Tuubaa sunu yaakaar bi mu nekkee Jolof dafa mas a woote ba ñépp ñëw mu daal di toog jël baaraamam bu tedd ba teg ko ci suuf ne leen ndaxam moos li dale fii fi Jolof ba fa gën a sori ca Saalum ñi bëgg lu baax a ngi ne gàññ lu baax te leen ticc ndaxam moos li dale fii fi Jolof ba fa gën a sori ca ñi bëgg lu baax a ngi ne gàññ lu baax te leen ticc ndax moos li dale fii fi Jolof wax fa gën a sori ca Saalum ñi bëgg lu baax a ngeen a gàññ lu baax te leen ticc ne leen xam ngeen lu ko waral la ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne lu baax dane du ànd ak lu bon lu bon ne du ànd ak lu baax yàlla suñu borom mi leen bind ne du leen boole doomu aadama bi def ñokket fas yéene boole lu baax ak lu bon dal ne xam ngeen boole lu baax ak lu bon ni ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ngi mel ni Eh, ku wut ngunoom ràbb ko ba mu dër mu dugal ci muusum siiroom kër-këri ba amuk ganaaram dugal ko ci ne da ko yar ndaxam moos bu ubbee eh, muus la fay fekk ak i donc kon bu leen jaxasee lu baax ak lu bon daal na xam ngeen boole lu baax ak lu bon num mela ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne mi ngi mel ni eh, ku defar ab géddam ba mu dëgër mu dugal fa ay bukkeem kër-kër yi ba amub gàttam dugal ko foofu ne da ko yar eh, ndaxam moos bu ubbee bukki yu ne jaww fay fekk ak i yax kon bu leen jaxasee lu baax ak lu bon daal na xam ngeen boole lu baax ak lu bon nimme la ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne mi ngi mel ni ku ñuy soow ci bari yére te yére bu mu summi sànni ca taal ba ana fu ñu mujj ndaxam moos ci la rek lay mujj kon bu leen jaxase lu baax ak lu bon daal na ni sawara bi def yëre yi kat noonu yi la jëf yu bon yi def jëf yu baax yi dal ne moo xam ngeen luy géddu bee ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne mooy xol bi daal ne xam ngeen luy bukkiyee ñu ne ko bëgg nañ koo xam ne mooy jëf yu bon yi maanaam rada il yi daal ne xam ngeen luy gàtt yee ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne mooy xasanaat yi jëf yu baax yi daldi ne bu ngeen bëggee seeni gàtt dund dangeen di rey seeni bukki daldi ne bukki yi nag li ñuy bari bari bari jenn jaasi tuub ju dëggu mën na leen a faagaagal kon fexe leen rek rey seeni bukki ndax ngeen mën a dese seeni gàtt loolu nag dañ koy delloo ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ndax am na xadis boo xam ne ni abi hurayra moo ko solo mu ne an abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iyaakum walxasada fa inna alxasada yaakulu alxasanaat kama taakulu naaru alxatab yonent bi sallallahu alayhi wax saxaaba yi ne maa ngi leen di wattandikuloo kañaan nga xam ne moom yu bon yi da cee tudd benn rek waaye dafay yóbbaale lépp daal ne kañaankat li tax ma leen koy wattandikuloo dafay lekk jëf yu baax yi ni sawara di lekke mat kon nañ wattandiku e, jaxase lu baax ak lu bon ndax loo sonn sonn sonn ci lu baax te di ko jaxase ak lu bon it e, du tax nga am dara ah sëriñ Malick Bassine kat wax ne loo mën a mën a mën a liggéey mën na liggéey kat ba mbaam te te mën a yàqu ba mel ni golo yi du taxa am kon nag na ngeen mën a wut te mën a denc na mën a wut mën a denc kon lu baax ak lu bon deesu leen jaxase te waa Sénégal ñu ci bari bokk ñu naqaree xàmmee lañ ndax lu xew dañ ñu ne ci la ji bu ñu wootee lu baax ñu fees fa del ñu ne fa gàññe bu ñu wootee ab safaan it ñu ne fa gàññe te day mel ne ñenn nit ñi. te loolu nag kenn xamut lu muy niru nit dangay féete fenn da ngay gëm lenn itam yonente bi sa alayhi wasallam na man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum kuy niru niru lu aw nit ci ñoom ngay bokk kon nag ab jullit dañ ko rëddal ay limite yoo xam ne fa la war a yem fu mu war a tàmbalee ak fu mu war a yem loola mbir jege-jege ak loola nit jege-jege te bokk leen diine bokku leen jëmuwaay boo ko yóbbaalewut ci li nga nekk fexeel ba bu la yóbbaale rek amal sa ful la am sa fayda te noonu la ab jullit di